asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ah ñun la sun seen mbokku taalibe seen dong bu xeebu tudd Balla Seck doon sénégalais nekk fii ci Argentine ci gox bu naan Cordoba Cordoba capital waaw nekk mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di gërëm bu baax tey suñu première euh, numéro émission Modou Modou dañuy ñëw fii ba dalal fi koo xam ne dégg ngeen ko ni mu présenté woo Bada Seck nee na ci lay wuyu sëñ Balla maa ngi jéglu bu baax nekk fii Cordoba émission bi it nii lay doxee daañu dem ci gox yu bari seet yi ñi nga xam ñoo ñoo di mudu mudu yi waxtaan ci ak ñoom seen démb ak seen tey euh, dana nekk benn porte boobu dana dimbali ñi nga xam ni dañuy door di ñëw bu ko defee it bu fekkee ni diglu nañu jaar jaar yi ñi nga xam ñoom ñoo leen fi jiitu rek dana nekk benn. courage boo xam ni dana tax ñu gën a xam ne rek nit ki mënul xëy rek am li mu am il faut mu sonn tuuti sëñ euh, Bada. Balla maa ngi tuub euh, bu fekkoon tey mën nañ la gën a xam yow yaay kan tey luñ ci mën a déggee. ah man da ci tënk xam man maay kan su ma ko dee mën a tënku man définir man maay kan day doon lu yomb ndax ni ma ko waxee rek ñun jaam jaamaati sëñ Tuubaa rek lañuy ñuy doon waaw. doon donga yu xeebu rek doon senegale doon taalibe Sëriñ Bamba di sàkku maanaam mu nangul ñu sunu taalibe lii mooy sunu lépp di ñaan doon donga yu yu nangu doon seen doon yi dongaam xam ni sunu lépp rek sëñ Tuubaa moom moo ko yor ba ne aslamtu nafsi joxe sunu ba sunu sunu sunu sunu bopp ñu nangu ñu di ñaan ñu nangul na ko ñuy rafet njort ci loolu suñu lépp moom dañ koy suñuy tënku daal di wax ci suñu bopp ñun doonuñu lenn lul dul jaam jaamoon suñ Tuubaa doonub dongam daal mooy la ñu doon <laughs> moom la ñaan yàlla. jaajëf loolu loolu mooy lu wér ku baax euh, bu fekkoon mën nañu dolli say jaar-jaar ci Sénégal sa jàng ak it jot nga fa def lan ci wàllum liggéey. Sénégal jàng nañu jàng nañu yàlla dimbali nañu mhm. xamuñu lu jàng ak liggéey ndax. sunuy baay defe naa ne eh, taalibe lañ ci Serigne Moussa Bassirou géerug seen ak dund ndax ki nga xamante ne gannaaw ba mu wàccee liggéey Serigne Mountakha mu Porokhane moo yëkkati ñaar fukki junneem ni balaa ñaquk njabootam di ci dem ñaqam kenn du ko ca jiitu kooku defe naa ne ñun mënuñu koo jot kon dañuy jéem a jaar ci seen i seen ay jéegoom rek ah, fexe doon taalibe te wax ci liggéey ci doonuk taalibe ndax defe naa la mu am. ah ñun de eh, dap dab ko danañu jafe sama waajuru jigéen it su ma toogaan ci ka wetam saa su dekk ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te wér daf ma daan nettali maanaam ba nuy ah, ba muy ànd ak sama maam maam ju jigéen di yéenu ci doji ndokk carrière ya kon ñun bu ma nee jam jamaatu Serigne Touba lañu xamuñ dañoo lu dul loolu eh, tubaab yàlla dimbali nu mm-hmm. ñoo jàng ba bàyyil ko sunu uh, bopp. lu jiitu tubaab daañu gis ni uh, ndawal murit surtout jullit sax li ñu gën a jàng mooy alxuraan ci njëlbeen jot nga ci def. waaw def nañ ci aslëf ndax bu dee ab ab diirit mm-hmm. def nañ ko ci keppaaru sëñ Saliou Mbacke. mu dimbali ñu defal na loonu jomb am na loo ci loo xam ne sax mënee su ko wax ñëpp di ko dégg waaye ab diir def nañ ko xel koom jaaga <laughs> te gannaaw boo xamante dañoo jàngi tubaab ba doon magum jëmm bàyyi ko fi ni ko fa ñukk dem toog xel koom jaaga ab diir kon moom lépp ak sant rek moom jàngan daal aslëf jàngan nañ aslëf waaye li wér te wér moom ay sagaru donga rek lañuy doon fii ñu nekk wuutewul nu ko ak toole xel kom ya ñu nekkoon balay boobu ci Sénégal ci sak yëngu ci wàllu liggéey ak yan kuréel nga fa jot a jaar it mën nañ ci gën a taxawlu def na lu nekk def na lu nekk def nañ lu nekk lépp loo xamante ne nii xalaalan tey ban muy dërëm sëñ Abdoulaye la mu wax ne xalaalan tey ban de ciw ñaq rek lay mën a bàyyi lépp loo xamante ni buñ ko dee def rafet njort ci ni mën nañ caa jële dërëm yu lew yu ñu mën a joxe àddi yi tey rafet njort ñu ne dinañ ko nangul lu nekk def nan ko ndax man mi def naa baana baana jën <laughs> te amu mbokk buy jaay jën am déet mhm. daal dem juwaalo mhm. daal di nekk yaraax fu nekk di jën di jën di jaay nekk nañ Hizbut Tarqiyyah mu doon école boo xamante ni dafa nan ni ci sunug dund mhm. bu rekkee am njàng sax lijaasa maanaam dafa nan ni lana jàngee foofa jàngee ko ci école jàngiw ñu ko ci université ndax jàngaat nañ fa ko taalibe tuwaar fakal la gannaaw bi nga xamante ni nekk nañ xel kom ab diir nga xamante ni maanaam murit li sunu sang boobu kilifa gu baax gu nekkoon fii ñuy ñaan mu yow sunu borom yokk ay leeram sëñ Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye Baye Ndiaye lañ koy wax daanaka murit murit mbaamum lawbe la waaw kooku defe naa ne loolu jàngee nañ ko foofa nangul suñu ñaan nangul sëñ Tuubaa rek lu mu mën a doon rek ñun duñ ca teg bët duñ ci gis lenn lu dul liggéeyal Sëñ Tuubaa. ok ñu taxawlu gis bu tarax gis nañu ne ay parti la ci nekkin bi ñii dañu nekk ci wàllu njàngum xasida yi ñii it am na yeneen post yoo xam ne ban poste ku nekkoon is bu waaw man nag administration administration vaisselle man maa ko yoroon ba jamono yoo fay nekk ci defe naa administration zone 3. bu ci groupe euh, élèves yeeg étudiants yi ci jamono defe naa it yoroon naa ko fa. <laughs> toir fakal waaw nu ñëw lu la marqué nga ñëw fii nga xam ne moo di genn bëgg a nekk mudu mudu def naa ku xam daara Hizbut Tarqiyyah tey macha allah nga yore fa it euh, poste boobu bu mag boobu di administration universelle ni nga ko waxee kooku lu lan lay wuti biti réew la marqué ba tax nga ni da ngay nekk mudu mudu tukki maam nekk moodu moodu man sama gis-gis li may tënkuwaat rek dama ne sagarub dongo dongo laay doon moodu moodu da di aw tur rek la fa nu juddoo yaroo fa màgg fa cosaanoo fa lañu nàmp mañ koo tënk ci mu doonu ak taalibe kon Modou Modou aw tur rekk la Modou Modou aw tur rek la fii ñun bu nu fi ñëwee réew mi ñun duñu nu soppi du nu soppi mukk meneem num réew du nu soppi day mel ni Modou Modou ci ni ko tënkee ñu bari dañuy jàpp ne Modou Modou day génn di uti alal lu mu am dëgg la sax ñàkk mooñu fi indi moo ñu fi bàyyi ndax damay wax yenn saa ne sa benn bis damay wax ak sama waajur jigéen mu ne ma ñàkk dong la bàyyi fu foofu nga nekk. mu mel ne boo jàkkaarloog sa benn morom ni ko ñàkk la bàyyi mu di niru xas fekk déedéet ñàkk moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi lanu ñàkk nag. ba ñëw fi di ko fi uti wala feneen fu mu doon ci jamono ah, defe naa ni maanaam ne Modou Modou daal du dara daal. lu aw dàkkantal la. Uh-huh. kuy jóg di uti la rek ak kuy jóg di uti la rek. Modou Modou ki nekk fii ki nekk beneen réew ka nekk Sénégal man damaa jàpp ni man sama wàll bopp ci ni may tënk définir sama bopp di sagarub dong rek fépp fu ma mën a ne sëñ Bàmba rek laa fay nekkal sàkku ngërëmam rek moo ma fay bàyyi. yaa ngi may dégg sàkku ngërëmam rek moom ma fay bàyyi kon jóg pour doon moodu moodu man taxumaa jóg déedéet damaa jëm damay ñëw di daan sama doole fii comme ni ma mën a nekkee senegal du ko yàlla àtte sëñ bàmba ci coobareem ma nekk fii waaye dama jàpp ni fii ma nekk tooli sëñ Bamba ndax dañoo tàbbi ci ñaan gu nangu ndax defe naa ne su ma juumut sëñ bi wax na wajub laal xayra minal jihaati a sitti waqfiha anil aafaati kon ñu tàbbi ci ñaan gu nangu boo demee ci Matlabul Fawzayni fa la wax bayit booba wajub laal xayra minal jihaati a sitti waqfi anil aafaati xéewal yi nekk ci juróom benn goxe àdduna yëpp ñaan na ko sunu borom mu wommatal ko mu indil ko ko ci Touba kon defe naa ne saayir si turu muudu muudu buñ ko dee wax dañ koy maanaam lu ñuy wax rek la waaye liggéey sëñ Tuubaa bu nangu muy muudu muudu muy muudu ñu xamaat nag dellusiwaat ci bañ a doon muudu muudu ci ñenn ñin ko caractère yi jox muudu muudu takki jaaroog maa ngi jéggalu de maanaam di soppeekoo def yeneen maanaam kooku du ñun ñun li ñuy ut lu sëñ Tuubaa am la mu nangu ba pare kenn nattableetu ko defe mhm. naa ci xaayaan ku dégg séeréer kon dañuy nangul sëñ Tuubaa lépp di nooy ñu am yéene pas-pas mhm. di ko yóbbu senegal njaay ndax mooy ñaanu sëriñ Bamba uh-huh. gu nangu waaye lu ba xayra minal jihaati asitti waak fiani laa faati kon feneen fu fi waaye mën a nekk ki nekk fii ka nekk Japon ka nekk Siin ka nekk Amérique ka nekk Australie mhm. ka nekk ci biir Afrique fenn fu fi waaye mën a nekk rek na nga jàpp ni bu ko wuutalee ak say tool nekkin ca toole xel kom ci feneen fu mu fi mën a doon sunu sang yu baax yi di fi ñëw ku mel ni sëñ Ibrahima Xalilulaay mu sëñ Falil lu ñuy ñaan mu yàgg fi lool te yàlla boole nag moom ci baaxub sëriñ Saaliw ndax euh, waa daayira bi mos nañoo yóbbu seen àddiya man de téyewuma ko dégg rek laa ci am <laughs> mu sëñ Saaliw euh, ni leen yéen de boole naa leen ak sëñ Ibrahima mii man de booba fekk na ma jàpp ko waaye ci laa ko gën a jàpp ndax amuñu lu dul sëriñ Saaliw mu doon ko am ci ñun sëñ am satu mu sëñ blaat bërki dem boo njaay la fi ñëw kon dañuy gis ni waa kër sëñ Tuubaa yooyu bi ñu fi ñëw di ñu fi fekk ñun ñu nekk fii ci tàbb ci ñaan gu nangu goo xamante ni mooy liggéeyub sëñ Tuubaa bu barkeel bii <laughs> kon dañoo war a xam ana ñun ñooy ñan ana ñun ñooy ñan ñun mayuñu suñu bopp suñu góor góorgóorlu mayuñu sunu jàmbaar mayuñu sunu bëgg dara mayuñu sunu lépp rek daa tënku ci sëñ Tuubaa suñu lépp lu mu mën a doon suñu démb suñu tey suñu ëllëg suñu lépp daa tënku ci sëñ Tuubaa sëñ bi bu waxee ne nasu mbindéef yëpp mi ngi tege ciy loxom zimaamul waraa xaslilallaahi fi yaddi wa maa rumtuhu maalikan xaalibil an yi mm-hmm. ñun ñu doon ay jaam jaamaati sëñ tubaa bu ne ñu ni mbàkke mm-hmm. ñu ni mbàkke mm-hmm. sëñ Tuubaa moom moom démb malaka ni dunya waxuraa samadu moom tey moom ëllëg na su mbindee fi tege ci loxoom muy boroom xéewal yi sëñ bi kon ñun du du ku mu mën a doon dal bu ñu du du ma damay ndamu waaye dund ku nu moonam ku mu mën a doon déedéet doon dongab sëñ bi ah ñii ñaan mu nangul na ko rek mm-hmm. waaye loolu du ku mu mën a doon dañoo war a xam sunu bopp xam sunu valeur xam la ñu bëgg mm-hmm. xam ana ñooy ñan xam ana ñun ñooy ñan euh, nga baal ma daañu gën a yaatal xam naa ñu def commentaire bu ndaw rek ci li mu wax ci bayit woowu nekk ci Matlabul Fawzayni nga xam ni mooy suñu mission bii ni dox nee na sëriñ bi na ko foofu te lu mu ñaan suñu borom jubóo na ci ak moom ci bu nu jàngee madali al husna wa madali sayat man yàqul ne balay tàllal yàlla loo xam di ko ñaan la ko yàllay may daanu ñëw ci euh, bi nga ñëwee ci réew mi ndax mën nañu dellu ci sa démb maanaam ci ndorte gi nga xam ni jaar nga ci jafe-jafe yooyu ci dund yu neex la wala yit yu naqari ba tey yi koo xamante ne nii laax buñ ko defaree daf jël ndigub bisab euh, daal di koy xooyal xëj na yenn saa yi du am suukar ñu sotti ko nga mën caa xéwlu bu baax a baax a baax ay neex ak i naqareeg yenn yi sax xëj na ñun yooyu du nu dara sagari dongalan du amuñu mbuut comme nekk nii da nga dund lu metti parce que bu fekkee ni njëlbeen nga ñëw ci réew boo xam ni déggoo langue bi xamoo li ñu voilà très bien waaye def naan moo fiy ñëw voilà liñ naan ola na def man xaw ma ko ñàkk da dund jafe-jafe laa dëgg la ah. jaar naa ci mbedd mi bu baax a baax samay bokki taalibe laa fi fekk mm-hmm. ñu dalal ma ñoo xam ne sëñ Tuubaa rek moo leen ñor mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ñoo naqari dëgg la des na ci jaar doo xëy rek yor dara ba tey ñàkk rek moo ñu fi bàyyi ñu di ko baamuwaat amuñu dara amuñu dara ndax la waay di am bay ndamu man de lu fees sama bët dana néew ndax sëñ Bamba moo fees sama bët gannaaw sëñ Bamba kon duma gis leneen sëñ Bamba min gëm yaakaar ko wóolu ko bu naan milliardaire yi sëñ bàmba yi ñu bëri du ko wax kenn ku nekk di ñaan bëgg nekk milliardaire sëñ bàmba yi <laughs> ah xëj na yàlla yàlla nañ ci bokk li fekk ñi ngi koy nangul moom sëñ bàmba fekkente ni nar nañoo am dara loo xamante ne nii du jeex ci tooli sëriñ bàmba yi ñun dañuy ñaan yàlla nañuy loolu jomb ndax aw jaay dong lay doon ñaanuñu ko yàlla ñaanuñu ko lépp loo xamante ne nii du duñ ko def ci tooli Serigne Bamba yi ñun ñaanuñu ko ñaanuñu ko fasuñu ko yéene xoma <laughs> dégg nga fa voilà euh, bëgguñu dara bëgguñu dara dara feesul sunu bët lu waaye mën a amit te defu ko ci tooli Serigne Bamba yi ñun loolu gisuñu ko lu waay mën a ñàkk ci sunu gis gi ñu ngi koy tuubal ñi ko ko ko koo xam ne mën na koo dégg na ñun dañuy jàpp ne ñàkk am tawféex ak ndimbalu nangulu sëriñ bi moo la ko xañ waaye li ñuy ñaan saa su nekk rek doon sagari dongo yu nangu seenug donga maanaam sëñ bi liggéey loolu te am na yaqin ne ku mu liggéey liggéey dina lay jox jumtuwaay yoo ko liggéeyale ndax waq di xawaay jël si na daamu fii xidmat yi waxab lahum maaraamoo ñun suñ lépp sëñ bàmba la <laughs> suñ lépp sëñ bàmba la bu ko defee ñu insisté ci comme question bi muy ci njëlbeen gi ci dana dimbali ñi nga xam ne dañuy door a ñëw waa bu ko defee wax ci metti metti xam nga ab donga wër taragal lu metti yaa wéy xëttim sin li tawaa yeta jam jamu ñun suñ lépp day tënku ci baam ba rek mu ni yéem na céem sa nga xam ni li tawaa ngir xiif yeta jam jam mi day jommi jommi li tawaa ngir ragal xiif kon ragal xiif maanaam du cegg xiifu lekk ak naan gu bari déedéet taxut ñuy wax ragal coona boo ko defee boo ñemewul coono rek doo jariñ ñun sëñ Bamba mi nu yaakaar ci moom la ñuy identifié ko référence ci moom rek lañ koy jël. defe nañ ni ah, ay yarub donga bu nekkee ci nit. loo mën a jaar rek. da jàpp ne lii moom akasa ak sant rek la. <laughs> moo tax daal kon ñu métti métti yi nga jaar loolu ak sant la rek maanaam gis métti. dëgg la bu mettiwut njariñ xëj na mën naa mën naa mën naa bañ a a am bu méttiwut. loo yor doo xam la mu doon. tey euh, bu ñu la déggee. Hmm. bu ñu bëggoon def benn it message pour nga dimbali ki nga xam ne tey mi ngi door a teg ak saabam saagam yàgg gu fi ci ban yoon it ci la war a jaar ak it voilà très pour tey waaw <laughs> ak sa. doonub donga rek. doonub donga rek. woyof toy ni mbaxana mbaxana bu diisoon kenn du ko teg sa bopp waaw kaala ci baat hmm. teggi teg fee takk sa ndigg liggéey teg sañ bàmba sunu kanam teg sañ bàmba sunu kanam lii dong moo fi nekk leneen nekku fi lu ñuy am di yàkkamtee njëkkantoo dem senegaal ñu naan ñëw nañu egsi nañu mhm. nañ ko bàyyi xel lii ma leen di wax mhm. baagante Sénégal bu bari mhm. takki soxna di di defi affaire yoo xamante ne bu caaxaan jeexee dëgg des ah, lenn lii lépp xam nañ lay yàlla wala ñu ngi rafet njort ci ni am nañ ci ak xam-xam ci gis-gis waaye erreur moodu moodu baagante yenn yu bari te li may wax nag ci ndigal laa ko teg ndax suñ sang bu tedd bi nga xam ne mooy sëñ Ibrahima mhm. sëñ sang sang sëñ Saliou boole woon kook ñun mhm. damaa mosa a tuxale ci waxtaanam mhm. maanaam mu mal ne lu ñu tere baagante yu bari yi dem Sénégal baax na loolu waaye fekkente ne da ngay egsi yow dafa góor fi ñaari fan at ni tëll ni dem nga Sénégal Euh, defoo fa dara lu sotti defoo fee dara defoo fi dara jamono day soppeeku jamono day soppeeku jamono day soppeeku suñuy waajur de yaakaaroon lu ñun suñuy mbokk yaakaaroon lu ñun fii sànce sëñ bambala la wutale wuñ ko toole xel comme ya ñu nekkoon luñ fi mën a amee maanaam dañuy ñaan mu jeex ci liggéey sëñ Bàmba bi rek lu ko mooy yàlla nu jomb waaye tànk nu mu gaawee na ne awee ciw yoon yàkkamti baaxul nan def ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk rek fekkee place bii makkan mii ma nekk man de feesul sama bët dafa naa ne yoroon naa ci yeneen manqué ak yeneen ba tey ji waaw ah, man màkkaan bi fi la fekk pour man na ah. waaw kon sama màkkaan la waaw bii sama màkkaan la waaw fii laa yëngoo waaye ci mbedd mi laa njëkke ak yore malet ñu may dàq ci mbedd yi municipal yi <laughs> di nangu samay bagages coono bu nekk daj naa ko fi de waaye rek di doon sagarub dongo rek tey rafet njort ci sëñ ba mi nga xamante ni moo yor sunu wërsëg moo yor sunu wërsëg moo yor sunu wërsëg moo yor lépp su su su su sunu bakkan ci loo ci ci ci ci ci loxoom la ne moom la ñu jëbbal sunu lépp te ñaan mu nangul na ko dégg nga defe message bi am na solo avant lii dégg ngeen ko ndeysaan jot na jaar fi mudu mudu jaar malet ñi ko xamul mooy loolu mel ni gaal te diis loolu waaw ñu def ci jaar ba mu fees ndeysaan ngay dugg ci baar yi ak it euh, fenn fu ne nga dugg fa ak moom jot nga ci jaar waaye nag euh, comme li mu wax rek yaakaar naa it ku liggéey wala bala ngay def dara rek il faut nga sonn ñu seetloo te yoonu murid yi nga xam ne moo ñu may suñu lépp sëriñ bi ñu may suñu lépp it foofu la nekkoon gis ngeen li mu daj ci tukki ba yàlla may ko xewal yi mu ko may kon bu ko defee rek ngeen xaar ñu émission bi fii ci Cordoba